parce que booy wax démb wax tey doomu aadama na ñett la la am liñ naan boo dundee démb dund tey sa démb moo lay wax sa tey waaye sa tey moo la war a wax sa ëllëg mhm. li ñuy dund tey ni nag président Macky xam na ni suba li war a am moom xam na ko comme dund na démb dund na tey ci président Ablaye Wade bañ folli ko mhm. mu dund ci pouvoir am lii fitna ak coow xam na ni bu wootee troisième mandat lan moo war a xew kon loolu man du ma ci jaar na borom am wax bu yegg dafa ko moom man duma ci jaar moom moo wax. Mhm. comme nee na am na droit def ko ah ñu ngi koy xaar ba boobu Sénégalais yaa ngi koy xaar. ba ba décision génn ñu ne day def troisième mandat. waaw booba rek loolu la ñëpp di xaar Sénégalais yi moom loolu rek la ñuy xaar ba wax soppeeku. Mhm. jëf soppeeku loolu la rek. d' accord alors ñu jël ki ci ligne bi laataa ñuy tëj suñu parti mosquée bi salaamaaleykum. allo. sëñ bi ñu ngi lay ziar yaa ngi en direct sur Feeling Dakar. ci ah. yaa ngi ci émission bi en direct. yaa ngi si jàmm baax. ñu ngi sant bu baax yow nag baa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. jërëjëf ñu ngi lay déglu. dama la bëggoon a jox sama contribution rek. yore la déglu. maanaam comme réew mi situation yi nekk nii. Mhm. ñi ñu jiite. Mhm. ñoo war a bàyyi xel bu baax a baax a baax ne jamono dafa changé léegi. Mhm. parce que technologie bi daf ñi yëwutoon daf leen yee bu baax. te euh, président de la république. maanaam du ma bokk ci élection yi bu ko waxoon rek lépp leer. Mhm. te da ko war a wax ndax liggéey na fi loo xam ne si nii ne maanaam troisième mandat bi dana ko yàqal. Mhm. waaw maanaam tey su taxawoon ne maanaam troisième mandat du ma ko def. Mhm. yàlla xam na ne képp ku ko bañoon sax dana ko bëgg. parce que moom moo toogoon wax ne maanaam ñetti mandat yu teg lantoo dutu am. sept ans ak cinq ans yam ñu moom moo waxoon loolu rek bu mu bokk bu bokkul rek jàmm na ñooy bàyyi ñi nga xam ne ñoo bëgg a bokk ñu dem ku dem ku la yàlla ku yàlla may ndam nga jël mhm. loolu moom moo gën d'accord donc yow da nga jàpp ni fi mu toll nii war na gindi askan wi taxaw ne carrément du bokk waaw ndax maanaam askan wi lim ko lebal fayeeku leen ko de d'accord ndax dañu ko wóolu woon jox ko mhm. bu ñu demee ba ak si fii tey ñu naan tooy naag wow na daf leen war a wax lu leer naa ñi damay dem bu bëggee dem danaan damay dem bu bëggut dem mu ne bugg bëggumaa dem waaye waruti toog ci ne du ma wax wala jotagut wala nangam. Mhm. ndax bañ koy fal moom moo laajoon ne jox leen ma ñu jox ko xaaruñu woon tey xaaruñu woon suba dañ ne noonu jox jox léegi nag fi mu toll nii normalement dafa waroon a taxaw wax ak ñëpp ni leen duma dem wala dinaa dem nit ñi xam ci lu ñu mhm. waaw ndax it wax dëgg yàlla am ci loxo yi set bi ci lañ ko joxe woon réew mi bu tollee fii nag warut nekk naan ay. tey laa wax wala suba laa wax dinaa dem wala duma dem loolu moom fotom la am li mu war a def rek déclarer lu leer naa ñu ne damay dem nit ñi xam ne day dem du ma dem nit ñi xam ne du dem mhm. mais lii nii baaxul ci ci ci réew mi daal d'accord am na solo te wax dëgg yàlla nag liggéey na moom liggéey na de ndax boo mhm. xoolee boo génnee dem ci àll bi di nga xam ne liggéey na mais mhm. problème mandat yi ak yenn yu sew yi nii man nar na yàq liggéeyam bu bëri d'accord waaw jërëjëf kontaan nañ ci sa am na solo Euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom it ci kàddu am solo yooyu te li moo ko aussi euh, yaay bo yàgg na ko wax ni que président Macky ku bëgg Sénégal la ku bëgg mm-hmm. réew mais entourage bi euh, récemment aussi am na ku ma ci interpellé mu ne ma entourage bi ko wër ñoom ñoo jaxase ñoo koy ba ñoo koy max actuellement mais moom waroon na ci mën a jël expérience parce que tey jii nekkoon na ci nguur bi dund na loo xamante ne Ablaye Wade dund na lii mm-hmm. Abdou Diouf dund na lii dem ba nu foon la mu dem ba desulu cëppaandoo nga xaw ma ne woon meew juróomi dërëm am na kon président Macky Sall ci ngorom ak ndayoom nu mu toll. waru woon toll ñu naan ko ndax war nga def troisième mandat ndax waroo koo def. am na ci yoo xam ne euh, du bëgg nguur da di ay nit dañ lay bëmax rek ba dugal la ci kàmb gi te doo ko yëg. Mhm. te boo ci daanoo ba pare jeex na. parce ñooñu tamit seen intérêt xëy lañ ciy. waaw léegi nag moom grandeur am foog nañ ne weesu na muy taxaw naan su ma neexee def su ma neex du am na ci loo xam du question neex yoon da la ko mayut. Mhm. kon la yoon mayut sunu borom nangut fitna. nanu bana fay yee fitna ci réew mi parce que heure bu ne damay su keroogee mooy liñ doon yaakaarut moom mooy am kon am na ci loo xam ne waru ci réew mi waruñ jël Sénégal di ko foyee mhm. def Sénégal benn poupée yaa ngi dégg def ko mhm. benn dessin animé di ko kall kallee mhm. bu ñuy bu ñuy xëccee jëm fii ñuy xëcc jëm fa ca def def ko dessin anime yooyu mooy poupée yooyu nga xam ne dañ ko daan def comme genre yooyu di ko xëcc ak ay morso moom lañ def Sénégal di jàpp Sénégal di foye ñii di wax jëm fii seen intérêt ñii wax jëm fële. Mhm. Sénégal nag politique yàgg na fa waaye musul nii saltee nii. Mhm. parce que opposant tam waruñ koy mën traité nii ñii ku am ndey ñii ku ma amul ndey. Mhm. parce que bu yàqoo sunu Sénégal la ñun ñoo ko moom bu baaxee suñu Sénégal la ngal la nañu bañ a fexe. bakkan yi tëdd dañ leen di amel àq parce que am na ci ñoo xam ne tey ay muumin lañ ay xale lañ. war nañu mën a rafetal rafetal sunu démocratie. rafetal sunu derub réew tey Sénégal àdduna bi yëpp dañuy mbamb Sénégal tax Sénégal lii ñu def ni benn réew defagu ko mm-hmm. dëgg la Guinée coow am na fa Mali Guinée coow am na fa bab goo moom ma nga ca kaso ba tëdd mhm. moo soxnaam mhm. parce que yu mel nii lañ doon def am na ci yoo xam ne ñaanuñu yàlla mu egg Sénégal mhm. ay benn mandat ñetti mandat juróom benn mandat sax bi boo ko amee yàgg-yàgg da ngay jóg mais gis nañ sax euh, sous région bi ñu ci mel ni Guinée Mali ñoom it wax nañ ni dañuy ñëw euh, Sénégal pour ñoom it defe naa ni apporter seen soutien defe na bu réew mi demee nag ba toll ci fii nga foog ni euh, reculer aussi pour. xool sa askan reculer pour mieux sauter xool sa askan parce que tey président Macky Sall mu jàpp réew mi du ko yàqal dara. Mhm. mu bàyyi réew mi du ko yàqal dara sunu morom yëkkati na ko day ba teg ko ci président de la république. Mhm. kon nit ñi nga xamante ni ñoom xam nañu ñoom dañuy taal fitna. ñoom mhm. waroon nañu ba mbañ a yokk lii Mimi waxoon na ko. nee na coow lu coow lu yëpp troisième mandat bi moo waral mbiccoo beeg mbaalo beeg xëccoo beeg tëjaate beeg. lii rek moo ko waral nañu delloo suñu xel ci yàlla te xam ne. Mhm. yàlla ay mbiram da koo jeexal ba pare. Mhm. Sénégal nag mérito wuñ tey lii ñuy dund nii ci crise bi ñu nekk. Mhm. ci xale yi mënatuñoo jàng. lekkatunu ba suur naanatun ba màndi Casamance mu ku fa yeewoo sa xel dalatul sànq rek ma am na ku ma doon waxal euh, sunu auditrice yi mu ne woon moom dafa feebaroon war a dem faju ji mais pour nga egg sa kër rek dugg sa biir kër c'est tout un problème ndax coow xeex xale yi manifesté wu pour seen professeurs yi di manifesté wu même Tiwaawan tey xale yi dañoo génn xale yi tey doon doon dox génne di manifesté wu imaginer tey bu force de l'ordre bi defaatee ni mu defoon Casamance def ko Tiwaawan mhm. fan lay mujj xale yi bu ñu leen jàppee ay quatre cent personnes nekk ci kaso bi mhm. loolu fan lay yóbbu Sénégal est-ce que dina tax économie Sénégal dox est-ce que bu xale yi jàngul professeurs yi nekk ci kaso yi ñu jàpp xale est-ce que loolu avantage la ci ñun. Mm-hmm. te amuñ lu dul suñu réew mi mënuñoo génn mënuñoo fayali suñu doom mënuñoo dem fenn biir Sénégal gii lañ am. li ñu naan dëkk du neex kër këray neex ndax ñun suñu Sénégal lu àddunay neex neex. Mm-hmm. ñun suñu Sénégal la ñu ko dàqal sénégalay nekk bitim réew bu doon son sago tey tey ñu ñibbisi ndax lu ñu am bitim réew rek. toog fi am fi benn weer rek gënal ne leen ay at yu ñuy dund bitim réew donte nag xaalis neex na. Mhm. kon Sénégal dañu ñaan yàlla mu am jàmm. Mhm. Sénégal nañ ñaan yàlla jàmm am fi que ñenn ñi bu ñu toppee seen intérêt bopp di am lu ñuy xëcc parce que ñoom am na loo xam ne war nañ koy mën a am. Mhm. munoo ama ama am ba am dayoo bi président ab Macky Sall am ba tax ñuy xëcc mu gën a toogaat li muy li muy am sunu borom may na ko ko. kon ngal la ñi nga xam ne danoo féetewoo. ci kuréel boo xam ne ñoo amuñu xalaat bu bon. Mhm. ak amuñu xalaat bu baax pour di dicter président Macky Sall ne demal ci démocratie nga organiser élection yi transparente ñiy xëccoo joŋante. Mhm. Ousmane Sonko tam citoyen la lii ñuy def nii di ko mbëccoo di ko mbaaloo di ko xëccoo mel ni kuy traquer benn criminel. Mhm. loolu jaru ko fi kaay wuy ji maa ngay dem. waroon nañu ko mën a yombal comme ni ñu yombalee Mame Mbaye Niang ñu bàyyi ko mu ndox yoonam dem. mais kii dem yoonam nga ne ko coppet ne ko dinaa la génnee fi nga nekk dinaa la dugal fii wala dinaa la yóbbu par force loolu yoon mayi ko kenn parce que laaj na ko avocat mu ne ko déedéet loolu yépp jógewul ci ñun ba tax ñu war laa mën a gàllankoor wala ñu war la mën a indi par force kon nañu seetaat Sénégal ñu xool lan la ñu war a mën a doxalee parce que kilifa yi boo gisee xale yi acharné ci ñoom. Mm-hmm. mooy nopp gi gënul. nopp gi yàgg yàgg dañuy mujj wax te fa ñuy waxee du gën wala.